concernant politique je crois que politique ñaari aspect la benn aspect mooy engagement nga décider bokk fenn mhm. beneen aspect bi mooy responsabilité man du ma critiquer mukk nit parce que bokkoon na fenn ba si yàgg mu décider ni fii kat arrangé tuma génn naa fa jël naa samay responsabilité léegi sax dama décider nekk candidat à la présidence de la République bon c'est une responsabilité même individuelle et personnelle mhm. donc nit kenn war ko critiquer ci loolu mais li ñu war wax te muy lu am solo mooy est-ce que kii li muy def lu réaliste la lu mën a jël résultat parce que la politique aussi c'est l'art du concret mm. c'est l'art du résultat mm. parce que dama gis tey jii ci ci ci APR ak Benno ñi ci jëm ñëpp ni dañuy nekk candidat à la présidence je ne suis pas sûr que kenn ci ñoom ku nekk mën nga gagner département ba nga dëkk je ne suis pas sûr que Mame Boye Diao dina gagné sax commune Kolda waxasuma la ak le département de Kolda soo jëlee Aly Ngouille je ne suis pas sûr que dana gagné laa commune de Linguère parce que bii élection yi mujj sax je crois qu'avec une centaine de voix ah. ou moins d'une centaine de voix la ko gagné te gaw ma ni moo ëpp Samba Ndiobène doole mhm. ci département Linguère d'autant plus que les 19 maires yi nekk nga nga jël mon ami Abdoulaye Daouda Diallo que je connais très bien d'ailleurs maa ngi je ne suis que dana battre Cheikh euh, ah. Cheikh Omar Anne euh, dans le département de Podor amee une chance qui tourne autour de 1 sur 45 départements mais c'est à peu près 2,22 pour cent mm. c'est à peu près 2,22 mm. de chance d'être d'être président à la condition d'ailleurs que nga gagné département le caractère même réaliste du projet et de et de ces candidatures là je ne Sidiki Kaba euh, et je suis sûr que moom mii bu décidé woon poser une candidature à la présidentielle avec l'effet jeune et les positions qu'il a eu à prendre sur le plan historique ragal naa ne ñooñu yaa leen di pouvoir hmm. parce que acte yi nga posé sur le plan historique posé que que yàgg na et tu as subi les foudres et c'est conséquence c'est des conséquences mm-hmm. de l'État mm-hmm. et aussi de la discipline sur le plan politique mm-hmm. le président a décidé jël des sanctions contre toi mais enduré nga ko tu es resté au sein de la l'APR mais ñooñu booba ba léegi ban acte la ñu posé sur le plan politique et sur le plan éthique sur le plan morale boo xam ne tey jii nit mën na jox crédit à leur engagement sinon que diw sama wujj la warul toog ma toog fii et comme ni nga et comme ni nga ko waxee Ablaye Wade ci PDS daf ñu daan wax nii Eh, ki adhéré tey ci parti bi ak ki sos parti bi ñoo yem ñoo am les mêmes droits et les mêmes devoirs ci PDS su fekkee ni tey jii ki adhéré tey moom moo arrangé parti bi par rapport à tel combat politique man Ablaye wàdd kooku laay jël et kooku Ablaye Wade dafay confirmer li wolof di wax wolof nee na yaa fi sës mooy taxafal et yaa fi sës mooy yaa fi sës parce que yow yaa mën a gañe loolu moo indi plus ou moins eh, tey jii eh, ñu jël Amadou Ba comme candidat de